Euh, dëkk yi gën a développé ay malaaka wàccum defar ak ay jinne ay doomu aadama ay nit comme yow am xel am xalaat ah, jóg defar États-Unis nga dem naa fa soo wàccee Dubaï hmm? ay mais pourquoi pas ñoom kon tey man damay dama gëm ne mbir volontaire la te maa ngi ciy bind bind naa am programme boo xam ne tuuti ma dese pour Kaolack au moment important dinaa ko teg bind ko ci kanamu Kaolack ci naka laa passé bi defaree kaw naka laa fexee soppi maanaam suñu voie bi naka laa koy defee naka naka lay tegee ba xam ne inondation yi dinaa ko dinaa ko génne kaw te xam-xam boobu am naa ko te def naa si